Sénégal asalaamaaleykum mbokki safoo di bàyyi xel leeral TV ak leeral point net tey comme ni ngeen ko gisee rek muy bisu gàmmu bisu mawlid atub 2023 e fi ñu nekk nii tey mu ci diwaanu Tivaouane ci wetu zawiya yi ne bi daanaka gis ngeen rang ne bi rek ñoo di ujaaj yi ngir mën a amal seen ik ziyaara ndaxte bés la boo xamante ne bi rek ci la ñuy màggal bésu ko juddu yonente bi sallallahu alayhi wa donc mu nekk bis boo xamante ne bi rek àdduna wërngal këpp dañu koy màggal rawatina fii ci diwaanu Tivaouane nga xamante ne at bu yàlla sàkk dañ koy amal muy euh, at boo xamante ne bi parce que bu ngeen xoolee euh, li fi ñëw ci mbooloo ren dafa euh, gën a jéggi dayoo te muy mel ni rek ne euh, gàmmu gile nekkul loo xamante ne bi rek dafay am tànku ginnaaw tànku kanam rek lay am ndaxte askan wi fépp la ñuy bàyyeekoo ci Sénégal rawatina ci àddina bi ngir ñëw mën a fekkee bés bu taaru bile donc dañu ànd ak suñu caméraman Cheikh Tidiane Sène dem dugg ci askan wi ñu laaj leen ñoom dëgg-dëgg seen taxawaay tey ci bés bu màgg bi nga xamante ne bi rek mooy bésu gàmmu atum 2023 bu ko defee mbokki auditeurs yeeg téléspectateurs ak internautes yi ngeen mën a am bu Touba Wane la comme ni mu leen ko waxee donc ñu ngi fi nga xamante ne bii rek moom mooy rang bi jëm ci xabru Serigne Mansour donc ay euh, ñoo xamante ne bii rek dañoo ñëw tey ngir def seen ziyaara yaay booy ñu ngi leen maa ngi leen di fi ngeen jëm moom mooy rang bi jëm ci xabru Serigne Mansour. waaw Serigne Mansour mu tedd mi. di nekk nag ay tiijaan di nekk nag dëgg tiijaan di ñaan yàlla mi xam ne dara ko lu nu fi ñaan yal yàlla barkeel ko nu ànd ak mboole mu jullit di ñaan nag dëkk bi am jàmm Sénégal dal ma ñaan sama njaboot ak sama famille ñëpp am jàmm si barke yonante bi yéen ñi filmet ngeen am jàmm rek nu téye ko nag ay déwén déwén yàlla ba mu nekk su mu njëkk gàmm yàlla gi dañ naan du am tànku ginnaaw tànku kanam lay am tey ren noo ko gisee eh, taxawaay bi day dem day gën a romb sax tànku kanam moom du def nii nii rek lay def. si barke borom guddi gi. jërëjëf donc yaay bu yow itam nga ñëw rek ngir amal gàmm gi. yàlla fi ñu taxaw fii tey dañu ko gëm de mu dugg suñuy xol lool si barke borom guddi gi yàlla na yàlla jekkal seen taxawaay jekkal sunu bos yàlla nangu ñaan yi. sant nañu yàlla lool julli si yonante bi suñu xol sedd te dara pareegul. ba tey ci rang bi nga xamante ne bi rek moo jëm ci xabru Serigne Mansour donc fii ci diwaanu euh, Tivaouane suñu yaay yi tamit saa su dañuy ñëw ngir amal ziar bi comme ni koy defee at bu jot yaay boy ñëw ci Leral TV. yàgg a def macha allah nii dafa neex trop. noo dundee gàmmu gi ren macha allah gàmmu gi ren macha allah a xol dafa sedd ma xol dafa fees ba mënu maa wax kontaan. fan nga jógee ci dara de Louga laa jógee man nga jógee Louga. man Bargny laa jógee. Bargny noo dundee gàmmu gi. gàmmu gi neex na trop moom neex na. neex na waaw fa laa jëm nii fa ah, ñaan rek ñaan lu siyaar. ñaan ak siyaar ah? waaw gaa mu ngi neex na trop. neex na waay. pour siyaare si waaw moo ñu indi. yal na yàlla na yokk sutura yi. amiin. bu dundee gàmmu gi tey. alhamdulilah sant yàlla. mbooloo yal na jëm kanam. wallaahu akbar. jërëjëf jërëjëf. yàlla fekk de at yu kañ bañ a tey jour gàmm gi noo ko dundee. gàmm gi daal neex na naat na am na jàmm am na salaam te dañuy ñaan yàlla affaire yi gën a bëri ñi ñuy gën a yokk at bu jot daal nañ gën a yokk rek. dañuy gis ni gars yi dañuy faral di taamu di dem di ziare ay xabru yow ban xabaru nga jot a ziare gum man dem naa si suñu si cheikh ak ay njabootam ziar naa foofu mais am na fu mu war a dem ne mais yegguma foofu. mais dafa xaw a moo tax man damay bàyyi parce que dama jaar ma leen di ñaanal ngeen gudd fan am wér fekk ko yu bëri daal ndax yéen tamit am ngeen si lu lu bëri ndax bu ñu ko nax yéen kenn du xam dara yéen ñu xam yéen ñu xamoon daal jërëjëf wasalaam sëñ bi waaw nga bàyyi ko fan ànd ak bi ma bàyyi ko ba Karang Poste frontière Gambie ak Sénégal ñëw si arrêté sëñ Babacar Si sama turandoor doom bi la sama taaw la di ñu wax ne ñun kontaan nañ si gàmm bi ñun amul lu dul sëñ Babacar Si sëñ Babacar Si lañ bëgg ba tax tey suñu xool sedd na guy ngi ñaan jàmm si réew mi di gëm ne sax jàmm dina fi am ndax ko toll ni suñu baax bu tëddee suñu suuf si gëm ne na jàmm dina fi am yëngu-yëngu na mënul ñàkk fenn mais ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay Sénégal ñoo ko moom muy Macky Sall muy Sonko ñëpp doomi Sénégal leen te ay jullit leen di ñaan yàlla jàmm rek gëm ne ne bu ñu jéego fii dina fi am incha allah xañ na ndaw rek ndaw ñoo xër rek si génn dem si a si xabru sëñ Aji donc gis nga affaire bi ni mu demee donc askan wi wax nañu euh, par rapport ak li leen fi ne xam dafay màggal euh, juddug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii nag ci diwaanu Tivaouane édition bu euh, ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru ko septembre atub 2023 donc ngeen ko askan wi bàyyi ko fu ne daal di teew ci bërëb bu sell bi ngir mën a def ay ziyaara ci xabru yu bëree bëri di dégg ngeen ko sànq ci témoignage yi donc askan wi itam fi ñu bàyyi ko daanaka fépp foo xalaat ci goxe goxaat xaar nekk ci diwaanu Sénégal ak ci sous région bi rawatina ñi nga xamante bi rek ñoo jóge ci diaspora bi donc ñëw nañu ci euh, bërëb bi ngir mën a def seen ziyaara ngir mën a amal euh, gàmm euh, am ko ren ji da boo a fees da ngay gis sax ñun bu ñuy liggéey sax dañuy am problème parce que askan wi fu ne la ñuy jaar duñu may ñu mën a def suñu liggéey convenablement mais tout dañ koy comprendre parce que c'est la situation qui nous oblige à faire ça donc muy loo xamante ni bi rek dañ koy euh, nangu euh, donc tey fi nga xamante ni rek la ñu nekk muy ci wetu zawiya Serigne Babacar Sy di waajal euh, guddi gi nga xamante ni bi rek mooy guddi tey gi gàmm bu ñuy amal ci atub 2023 donc ci kanam tuuti daañ fi ñëwaat bu ko defee jox leen ay information par rapport ak gàmm gi naka la ko askan wi di defee fii ci diwaanu Tivaouane ma àndoon ak Cheikh Tidiane Sène nekkal leen ci bërëb bu sell bi lee ngir Leral TV ak Leral point net